di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko nangul ñu te nangul leen nangu koor yi nangu ñaan yi nangu julli yi nangu njàngum alxuraan bi nangu mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne noonu ko doon def ci weer wi te su ko nangoo lu mu tuuti tuuti rekk mu ful ko ba mu màgg démb noo ngi doon waxtaan ci sant borom bi tabaraka wa xeeti cant yi nga xam ne mooy ponk yi dafa war a daje waxoon ne faw xéewal gi la yàlla defal nga nangu ko ne lii yàlla moo ko def waaye keneen defu ko kudul moom ba ca tegu waaw nga di ko waxtaane ci soo làmmiñ ci anam goo xam ne anamuk cant lay doon waaye nekkul anamuk tuutal ñeneen yëkkati sa bopp ñetteel ba mooy xéewal gi mu la jox nga sante ko di def lim la digal di bàyyi lim la tere di def ndigal yi di bàyyi tere yi i'malu ala daawuda shukran dee leen jëf jëf ju baax mu doon cantu xéewal yi leen yàlla xéewale ñeenteel ba mooy jëmmi xéewal kii mu la jox ci boppam nga di ko def fam ko bëgg moom moom suñu borom tabaraka wa lim la xéewale mu doon jëfandukaay bul ko jëfandikoo ci lu dëng la ko tàmbalee ci sa oto bii nga yor wala sa paasub oto bii nga yor ba ci sa téléphone bii nga yor yàlla la ko xéewale boo ci xool walla nga ci déglu xool ci wala nga déglu ci loo xam ne lu dëppoo ak ngërëmul ki la ko jox la muy sun waaye bul ci def luy indi meram tey nag dafa mel ne tàggu weer wi day bëgg a jege jullit bu nekk war a natt sa bopp ci weer wi lan la def ci yow boo ko génnee nga xool sa bopp ndax defaru nga wala déet koor kat daa war a am bàyyi daa war am lum bàyyi ci nit ki ci jikko ak i melokaan jaamu yàlla yi moom daa war a continuer waxoon naa ne koor du ci ne ramadaan rek moo koy boole jullit bi naafile it du ramadaan rek moo koy boole jullit bi sàkk sarax ak joxe asaka ak jàng alxuraan yooyu yëpp jullit bi la koy yokk ci ramadaan waaye du caagi ne ramadaan ko booleeg moom waaye nag bu yooyu ramadaan jàllee nga continuer di ko def nañ la ko sante it am na nag yeneeni melokaan ak jikko yu nekkoon ci yow yoo xam ne soo bëggee xiyaas sa bopp ndax ramadaan defar na la wala déet yooyee ngay jël xool foofa toll sunu borom tabaraka wa taala dafa am ci suratul xujuraat ci xujuraat ay melokaan yoo xam ne dañ koy tudde asifaatu sit juróom benn melokaan yoo xam ne jullit bi bëgg a xiyaas boppam ndax ramadaan jëriñ na ko wala déet day dellu ca laaya yooye xool boppam fan la fa toll gannaaw bi ramadaan jàllee danaa tudd yooyu ba noppi jàng aaya ya faramfàcce ko faramfàcce ko gàtt yooyu bi ci njëkk mooy as suxriya mooy reetaan nit ak saboote ko ndax yow loola mucc nga ci ndax saw làmmiñ ak say jëfiin mucc na ci saboote nit ak tuutal ko ak ji ko ak wan ko ne ko doo dara loola day ci melokaan yi baaxut la bokk yi nga xam ne bu ramadaan ñëwee da ko war a raxas ci nit ñi ramadaan daa war a génn nga yëg ne nit ñëpp benn lañ dañoo bokk di góor góorgóorlu fi gërëb boo xam ne ka fa gën rek mooy ka fa gën a ragal yàlla noonu la ko borom jàngalee ci laay ji nga xam ne danaa ko jàng ci kanam ñaareelu melokaan ba moom lañu ñu tudde lams mooy ñeleju léeg-léeg nit di wax keneen taxaw ca gannaawam di séen ka muy waxal am ay geste yu muy def yoo xam ne ci ay gëtam wala ci làmmiñam lam ci jublu mooy wane ne kii nangam nangam nangam nangam nangam joo ne moom mii mu taxaw ci gannaawam te gisu ko muy def yëngatu yooyu su ko gisoon lool yi dana ko naqari lool mu ndax loolu mu ci ci la ca tegu mooy at tanabuzu bil alqaab sànneente ay tur yoo xam ne ñu ngi koy sànni bëgguñu ko jamono lu ne ngay dégg ñuy tudd nit ñoo xam ne tuddewu ko boppam dem na ba ci ñiy askanoo diine ak daawa sax da ngay gis kuñ fertal fental aw tur di ko ko tudde te moom tuddewu ko boppam kii wahaabi la kii nangam la kii nàngam la kii nàngam la te boo ko laajoon lan mooy loolu sax moom mun naa wax loola lu mu doon moom mii ñu ko tuddee it amaana boo ko ko laajoon xamut luy lool te it neexu ko loolu dugg na ci at-tanaabuzu bil alqaab ba ca tegu mooy suu zan ñaaw njort ñaaw njort koo xam ne teguwul nag fenn lu dul daal sama xel dalut ci moom li muy def amaana nangam ma tax waaye nangam taxut wala ragal naa ne li ñuy wax ndax moo ko def wala defu ko ragal naa ne moo ko def suñ la laajoon foo ko teg ba ne moo ko def mënoo ko wax ma nga ne di jaamu yàlla di def lu baax nga jort na day njëstal ma nga ne di góorgóorlu ci diineem nga jàpp ne nit ñi rek a tax mu di ko def wala dafa am lum ca bëgg loo xam ne moo tax ma koy def waaye lii feeñ ci kaw bokkul la nëbb mel ne danga xam li nekk ci xoli doomu aadama yi ba ca tegu mooy at tajassus di gëstu xabaari jàmbur ngir tasaare ko xabaari jàmbur ak i sekkareem ak mbiri boppam di ko seet ngir xam ko ba mën koo toroxal walla nga mën koo suufeel ci kanam ay nit ba ca mooy alxiibatu mooy jëw toog fi béréb rek nekk ci sa derub moroom juróom benn melokaan yooyu yooyu la borom bi tabaraka wa jàngale ci laaya jim tàmbale ci yaa ayuha alladina amano yéen ñi yàlla laa yasxar qawmun min qawm bu am ñenn nit ñoo xam ne dañuy reetaan yeneen di leen saboote asa an yakunu xayran minhum amaana ña ngay saboote ñoo la gën wala nisaaun min nisaa loolu yëmut ca góor ñi rek waaye même jigéen ñi bu jigéen saboote jigéen asa an yakunna xayran minhunna amaana jigéen jay saboote jigéen ja ca des amaana ki muy sabootee ku gën wala talmizu anfusakum bu leen di ngelaju seen bopp amaana man nga ne kenn du ko def boppam waaye borom bi tabaraka wa taala la muy junj foofa mooy la ngay def sa morom yaa ngi koy def sa sa bopp ndax sa mbokkum jullita lu dal ci kawam day mel ni ci sa kaw la dal soo ñaawalee jëmee ci moom yaa ngi ñaawal jëmee ci sa bopp ndax yéen a bokk lu ngeen doon waxit mu jot la wala tanabazu bil alqaab bu leen di sànneente ay tur ak i sant yoo xam ne baaxut bi sa lismul fusuuqu baax al imaan tur woo xam ne la nga ci jublu tooñ kooka la day gannaaw boo xam ne nee nga dangaa gëm yàlla loolu dara yéesu ko lu fa war a sës kon mooy tuub man de daanaa ko tudde noo xam ne du noona kon tuub naa ko ci war a teg ma ne nag ba man lam yatub fa ulaayka hum zalimun ku tuubul nag moo tooñ ku tuubul ku def loolu te tuuboo ko moo tooñ teg ya ne yaa ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min adan na ngeen di wattandiku lu bari ci njort inna baada danni ismun bari na ci njort yi yoo xam ne day bàkkaar la ndax njort lu ñaaw lu tegul fenn kooku bàkkaar la wala tajassasu bu leen di rejoonte mooy di gëstu xabaari jàmm wala yaxtab baadukum baadan bu kenn ci yéen di jëw kenn ay yuxibu ahadukum an yakula lax laxma axihi fa karihtumuh ndax kenn ci yéen bëgg na di lekk yàpp mbokkum jullitam wala mbokkum doom aadamaam kenn bëggu ko moo tax mu ne fa karihtumuh wattaqullaha rahim kon ragal leen yàlla te xam ne yàlla ab jéggalaa kon la borom yërmande la mu daaneel nag ne yaa ayuha alladina amanu wala yaa ayuha annaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shucuban wa qabaila li tacaarafu ne dama leen bind ngeen nekk góor ak jigéen nekk itam ay askan ki xeet ak i waaso lu tax ngir ngeen mën a xamante xamante nag su xasee xam su amee rek lu nekk mën def caa tegu ci xeeti xéewal ak xeeti dimbalante waaye rek lu ngeen bari bari ay xeet ak i askan ak i banqaas yu ngeen bokk inna akramakum inda allahi atqaakum ka gën a baax fa yéen fa yàlla day ka gën a baax ci yéen fa yàlla mooy ka ca gën a ragal yàlla inna allaha alimun xabir yàlla moo xam lépp mooy ki nga xam ne dafa dañ kumpa maanaam amul kumpa goo xam ne eh, borom bi tabaraka wa am na ko ci lenn ndax ka xam ba xam la na ca biir xel ya ak xol ya kooku dara ump ko nit moom daa bañ kumpa waaye borom bi tabaraka wa taala moom dafa dañ kumpa yàlla nu borom bi tabaraka wa taala defal tawfiq nangul na suñu jaamu yàlla weer wi bu fekkee fii la yem itam wala yemu fi lum ca mën a doon yàlla na ko sunu borom tabaraka wa taala def mu bañ a nekk sunu weeru koor wu mujj bañ a doon weeru koor woo xam ne day ñëw bañ na fee fekk wala mu fekk nu bañ a am ak wér yàlla na ko yàlla indi te fekk nu fi ak jàmm ak wér gi yaram goo xam ne danañ mën a def jaamu yàlla yi nu son borom tabaraka wa taala sant ay weeri weeri weeri weer ci kanam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh